sunu doom ñu it ñu nañu yaakaar ci yéen. ñu ne kon ñaari yaakaar yi nañ ko jël. fas ko jàkk ji dégg ko yàlla. kon yàlla na yàlla taawul sëy bi. yàlla ci yàlla def doom yu lislaam di tiitaroo ëllëg. yaasin say baay ñu ngi lay ndokkale. sëy bi yàlla nañ jiglaay. jigéen ki yàlla ji borom këram. yàlla ji soxnaam. la ñu waxoon ca jàkka ja rek moom la ñuy waxaat léegi mooy bari na bu teraanga ñu ñëw ndey du fekkee bàyyi du fekkee nga bisu yaasin bi tey bu sañoon yaayam fekke bàyyam fekke waaye yàlla dogal na kenn fekke waaye mbokk yaa ñu jël cër bii ay magam toog gunge soxna yaasin ñu jël cër bi jox monsieur Dione mu ànd ak ay bokkam ak dëkkandoo ñu ñëw teewee ca jàkk ci seede seede bi mooy dem jigéen kenn du ko takk te joxoo ko canam ñu jox ko can can googu nag bàyyi du ko lekk kenn du ko lekk kenn du ko may can gi mooy lan danga koy jël jënd ci yéere soo demee ba am soxla ci sa sëy néegu sëy wala ci yàlla yéere boobu ngay jël jàpp ba sell songu julli ñaari rakk booy tàllal yàlla loxo mu nangul ba ca des mooy sang yi lañ leen waxoon ci jàkka ji rek na ngeen ko yiir suturaal ko mottalil ko diineem ku góor gi ñu ne ko loo bokkal ak sa soxna na nga koy jege maa ngi dégg sànq ndeysaan kuy tooñ naan ko waaye gëmal yàlla ni may nañ la yaasin nag xam nga kon mooy waaj yàkkal ko yàlla na ko yàlla defal barke yàlla na ko defal sutura ñun daal dañoo bég ci seen ñëw bi ngeen ñëw parce que da Euh, li ngeen di dox si ñor nañu parce que ñaar ak ñett bu ñu ñëwoon dina doy mais fonk bu ngeen fonk yaasin ak ay mbokkam moo tax ngeen def seen délégation bu tedd bii car macha allah ñëw fekk fi ñoom magi yaasin yeeg baayam yi ñun daal mënuñu lu dul wax leen ni yàlla na leen yàlla fay. amiin waay yaasin ah na nga sëy ba may daaneele mooy dañ ne doom nday ja sa yaay dafa sëy sa baay gërëm ko ba tey fekke wuñu dafa benn xakim foofu laay daaneele seek dafa am benn giléem moom la daan demee ci luuma yi giléem bu jigéen bi jékki-jékki am doom góor ñi kontaan ci doom ji gi am mu ni soxna si ah sama xel a ngi dal mu ni ko lu xew mu ni ko kii bu màggee dina ànd ak ñu ñu yokk suuf bi dem ci luuma yi doom ji dem ba màgg ñu sëf ko bi doom ji nanguwul a jóg ak sëf dàq dàq doom ji toog ndey ji jóg ak sëf bi mu ne ko soxla si man jaaxle naa ne ko lu xew mu ne doom ji la jóg ak bi mu ne ko doom nday ja soxna si ko doom nday ja mu nga doom nday ja mu ne ko lu xew ah, bi ñu toog biir daam jeex benn góor ñëw jël ko ca tàkkusaan jeex xarit ba ñëw ne ko sa soxna sa jël nañ ko soxna ba tàng waaye daf ko ni woon doom day ñu toog tuuti ca fajal ko soxna soosu ren di jëkkër ji ci fajal soxna si ren di jëkkër ji ci fajal ñu dem ñeenti weer ak tuuti benn waa ji waa ji ko wëccoon ni ko nag comme nee ma doom nday jam laa ko wàcc dem leen jëlali ma diw kii nga kii rey jëkkëram bër gi dem nga ne daf koy takk mu ne daf ma ni woon doom nday ja ndax woyu juróom bu jigéen bi bu koy jëmbalee bàyyam ca su ma continuer moom dina ma rendi te benn lay jàngale rek mooy jigéen faw mu sëy faw mu muñ dañuy wax ñetti fan la li ci des lépp coloré la yàlla nee na wala tansul fadla baynakum loo am na nga ay na nga ko jàppal mbokk yëpp ñëw nañ lii daal moo doon kàddu yi ñun daal bég nañu ku bég nañu ku def nañ yàlla na nag yàlla ci jàmm te it seen kàddu yi ak seen tànk yi ngeen ñëwee mbuur na ngeen ñaanalaat réew ci seeni xol ndax yàlla def fi daal jàmm ndax lu waay di wut na wut jàmm jàmm lu ne lii daal moo doon kàddu yi ngeen baal ñu àq allahumma salli suñu man sama rakam Mabou Kella kii si xaritam la muy Amadou Bayane waaye ñoom ñëpp ñoom ñëpp samay raqalan am mbay si yàlla def na maa moom ña bokk ndey ak baay ak suñu wàllu mee ama waaye nag dañuy sant yàlla ndax bu yàlla niitalee ba ñu ñëw dugg ci fi ñu dugg nii xam na ni kër jullit te gis nañ fi ay kanam yu macha allah kon ñun suñu xel waaye dal na pour dara yéene seen xel dara seen xel yaasin mii bu dee am benn xel ñaar bu lay xont rek suñu kër la fekk baax ah barke sëñ Bamba bu dee xont ah, suñu kër la fekk baax ndax euh, suñu papa ki doon taasu muy wax na ko sànq ñu lay dugg si moom fa am way moom la coon sekk doon way mooy Maas Ndiaye ko xam ñëpp ko dégg ñeme woon njaboot lool bëggoon njaboot lool fonk njaboot lool waaye nag yàlla def na li mu fonkoon njaboot lépp nga doon wax une mu ne la ak sa jabar yow ko defal bul ko lii bul kooku góor gu baax la léegi nag bu nekkul comme war nañu yoon yi yoon boobu la ñuy appuyé wu rek mais pour dans seen xel bu doon am benn xel ñaar parce que sëriñ Bamba ci kàttanu yàlla yal nañu yàlla jubóo leen moom ñu dàq yàlla dàqoon ñu seytaane xam nga waaye ñu jàppal ko ci côté bépp te bu soobee yàlla moom xam naa moom bu ñëwaat fii moom doon xàmmee. ah waaw bu soobee yàlla. jërëjëf yàlla yàlla doon loolu. jërëjëf ñu yàlla julli ci Seydina ñu waxtaan fii sax dafay xaw a métti. ndaxte ku mel ni kii doon wax léegi. borom xel mu rafet bii. su duggee ci àll bi taxat ba pare pour mu am fii say njëriñ mais olof Ndiaye nee na ku yee yaxit. waaw yaa ku yëy ñax yi bu kii nga yëx yi waaye nag olof Ndiaye nee na ko xam fekkees buñ la yónnee gars yi nga jaar. ñuy santaat yàlla bu baax. di wax ne yéen ñi nga xamante ne yéen a jóg def déplacement ñëw. tànk yi ngeen ñëwee ak ya ngeen di dellu yàlla ko yàlla def far bàkkaar ak ku yiw yàlla mën na ko am na ko yàlla nañu ko bur yàlla defal soxna si nga xamante ne moom ngay wut. yàlla bu ko cat jiitu yàlla na ko cat seexlu yàlla na yàlla barkeel sëy bi bi barakat Seydina Mohamed ñaar laay wax rek du yàgg muy kii nga xamante ne moom la ñu bàyyee xale bi muy Moussa Dione jar na ko waaye ku am fulla ku am fayda kontaan na nag mais man wóor na ma wóor yàlla seen fànn yéen a ko gën a dégg ku ñaan si jabar ñu may la boo waxee kontaan naa xam nañu boo waxul kontaan naa xam nañu dañ wax rek waaye yow mii da mënoo wóor ah ree na yaa ngi dégg ñaareel bi kii nga xamante ne moom lañ la jox suñ ko naroon a muur tey di leen ko jox dañ koy muur boole ko guddi kon liñ leen di jox baaxul yéenay mottali ak mbaaxam waa ji dafa toog ba mu yàgg mu ñëw ci sëriñ bi ku mel ni imaam gay ne ko man de damaa bëgg nga takkal ma jabar waaye ku jub laa bëgg mu daal di dugg ci biir urmbal bi génne aw fas takkal boppam takkal kow fas ñu rëppatal uti armeel yi yegg si ci biir armeel yi mun a jëpp dugg ci biir armeel yi waa ji taxaw mu ne ko yegg si mu ne ko ah fu may jëm mu ne ko fii ci biir armeel yi ñi juba ngi nii ñii la tàllal ba ñu jub ñu takk seen i loxo ak seen i tànk seetal ki nga xamante ne moom la la yàlla boole nga mu ñëw kii kat yàlla jagleel na ko tooñ ak bana laaj. kon li nga xamante ne mooy liñ ciy dolli rek mooy François nee na muy Moussa Diop nii nee na mu doon sant yàlla julli ci Seydina Mohamed nee na mu ngi leen ñaanal. xale bii mu yëkkati di leen ko jox yàlla mooy seen jiglaay. yàlla nag mën na te nag am na mu defal ñu ak a koo yomb lool sax kon yal yàlla dogal mu def lii mais kontaan na trop mënta wax li nga xamante na mooy la mu bëgg a wax tey jii mën naa waxal boppam nag te dina waxal boppam sax parce que wokkal ma wokkal ma day fekk baaraam jot jot mais su ko baaraam jotee nga defal ko sa bopp man fam fi may daaneel mooy ku baax kii Moustapha Bassirou ku baax kii damaa bëgg balaa moo def ñaan yow sa wàllu nga ko xaalis muy xareer gay bii. xamoo ko nag. mais man de wóor na ma wóor yàlla ne billaahi wallaahi bu dogoo ci ñaanal la yow sa wàllu bopp ah nga gis leneen yàlla ñu buur yàlla doole jàpp. jërë ngeen jëf. kontaan nañu yàlla yàlla kontaan. waaw maanaam asalaamaaleykum. waaleykum salaam. dama di mag moom. waaye ñoom seen bopp samay mag yi mosuñu maa xam may wax ci lu mel nii ndax amaana dama yaroo ci keppaaru si Abdou Karim Mbàkke njiñ ñoom am na loo xam ne xam nañ ko ci man ndax ñoo ko def ci man su ma melee benn melokaan ba may tàgg ñoom la samay mag ndax ñoom lay njëkk a sant di sant al imam di sunu mbokk ci lépp te fi may wax rek mooy. ñoo siy soxla yàlla tuuti. jërëjëf jërëjëf. na ngeen ja na ngeen di jëlante ay ay famille yi tournante ko nga xam ne fii lañ commencé ko li ma leen ko wax boole muy suñu bopp yaram muy boole. dëgg la su dee foofu danañ ci. mbokk yi nii nii ñu ngi leen. tey nag Mbour la ñu ñëw. bu euh, ñu ñëw suñu suñu xarit si Mbaye si Ndiaye moo nekk di Mbour. moo fi ñëw la ak si bi ba yàlla dogal na ko fay ñu jëm may ko soxna Ndiaye. xarit si Pape Ndiaye wax Gracias. xamante après la loolu mais bëgg bu ci def topp ko xalaat ndeysaan parce que kër yaa ngi toog doon fal doon xamante ni ñëw loo leen jëf kontaan nañ ñu lay wax ne ak famille kontaan